dalal ak jàmm Keynaa mu ci plateau bi Keynaa nuyu nañ la dalal ak jàmm yow itam. fay naa la Aïcha c'est toujours un plaisir di yaakaarloo ak yéen di leen jaajëfal bu baax a baax j'espère que vous avez passé un bon week-end euh, ci kanam tuuti rek ñu daal di ñëw euh, ci suñuy astuces yi nga xam ne moom la ñuy indi tey ayca ci kanam tuuti dinañ ci ñëw mais en attendant dañuy ànd ak Amadou euh, ci avocat Amadou tey lan la ñuy waxtaanee. waaw Aïcha dañuy ñëwaat un ci li nga xam ne mooy la révision du fichier électoral parce que gis nañu fan yii passé ki nga xam ne mooy Sénat donc génne benn communiqué ne li nga xam ne mooy le fichier électoral n'est pas mis à jour nag donc tey dañuy taxaw ci li nga xam ne mooy révision bi donc nan lañ koy defee ak kañ lañ ko war a def parce que juróon na li nga xam ne mooy polémique mais nag liñ ciy taxaw tey interpellation bi ñu ci am maanaam Sénat xam ne organe boo xam ne bu am solo la ci wàllum élection commission nga xam ne moom moo war a superviser li nga xam ne mooy le processus électoral bu demee ba ñu demee à deux mois trois mois des élections mu génnee ab fiche ab communiqué donc ni fichier électoral bi taxawaay bi nga xam ne moom la war a taxaw en matière électorale donc question boobu lañ demoon posé ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Cissé nekk ONG 3D donc pro nekk tamit coordinateur programme ñetti élections yi maanaam élection législative ak locale bi nga xam ne moom la ñu ak élection plateau. que foofu damay indi benn benn problème. Mhm. problème bi mooy euh, Sénat. Mhm. ñoom aussi foofu am na lu lu lu ñu lu ñu war nañu matal seen taxawaay. Mhm. parce que boo demee ci code électoral bi article onze Sénat dafa am mission wu contrôler ak superviser. tout l'ensemble des opérations électorales nga xamante ni ñoom bu fekkee ni am na rëq-rëq ci benn ci benn étape processus électoral mhm. ñoom am nañ sañ-sañu euh, euh, jóg taxaw wax dox ci wax ci pour que ñu corriger dysfonctionnement boobu mhm. kon tey bu ñu nekkee ci situation boo xamante ni dañuy wax naan fichier électoral bi fiable na fiableul euh, mise à jour c'est pas mise à jour mhm. Sénat war na gindi sénégalais yi ne leen ah ñun de si suñu wàllu sañ-sañu liggéey Euh, lii ak taxawaay bi la ñu war a mën a am pour que fichier bi leer wax ji leer ci problème fichier bi mm-hmm. mais loolu gisuñu ko tey ci Sénat mu nekk benn situation boo xamante ni le euh, la Sénat dañu ils sont muets par rapport à cette situation là à part euh, communiqué boobu ñu génn te man communiqué boobu gisuma pertinence am mi ngi noonu Cheikh Tidiane Cissé nga xam li nga xam ne moom la wax ci li nga xam nga xam moom moo war a superviser li nga xam ne mooy processus électoral bi donc moom nga xam ne vraiment code électoral bi daf ko nommé cité ko ci li nga xam ne mooy organisation élection yi donc mu dem ba à trois mois des élections mu génne ab communiqué ne fichier électoral bi donc c'est pas mis à jour donc loolu daf bi nga xam ne moom la war taxaw c'est-à-dire liggéey ne ñoom moom la ñu waroon liggéey liggéey ñu li ni mel plus que vraiment mi ngi koy wax ne communauté bi nga xam ne moom la ñu génne gisul pertinence li nga xam mooy communiqué parce que ñoom li nga xam ne mooy la Sénat am nañu compétence vraiment wax ak li nga xam ne mooy l'administration pour mu defar li nga xam ne mooy fichier électoral bi ko deful mu jël li nga xam ne moom mooy ay matuwaay maanaam dem au niveau de la justice pour forcer ki nga xam ne mooy la l'administration mu defar li nga xam ne mooy fichier électoral pour mu a nekk mise à mu nekk à jour parce que on est à deux ou alors Amadou euh, révision bi ñan ñoo ko war a def ak kañ lañ ko war a def. waaw révision bi nag c'est c'est annuel donc boo jëlee code électoral bi donc dañ la révision bi c'est annuel donc chaque année war nañ am moom la ñuy woowee li nga ne mooy révision ordi ordinaire ñoo ko war a nag commission administrative la c'est-à-dire l'administration moo à travers des commissions administratives au niveau des des communes donc nag lañ koy nii lañ koy composé donc commission administrative dafay am président am suppléant boo xam ne préfet moo koy nommé wala sous-préfet. ak bu weesoo loolu dafay am le maire wala l'adjoint du du maire wala aussi ñi nga xam ne mooy les partis politiques légalement formés day am dañu am na représentant mais aussi bu loolu weesoo dafay am tamit Sénat dafay am kenn ku fay teg maanaam un contrôleur boo xam ne moom mooy superviser li nga xam ne mooy liggéey bi donc ñooñu ñooy composé li nga xam ne moom mooy.

que électeur gisoo si sa tur wala moom erreur donc mën nga def li nga xam mooy recours au niveau du tribunal d'instance maanaam tribunal départemental dans un délai de jours donc noonu la defee li nga xam mooy révision électorale bi Kéna. merci sukkandikoon sax mhm. euh, du parrainage ñoom ils n'ont pas tort de dire que le fait que fichier électoral bi dafa obsolète loolu moo tax. Diallo. waaw mën nañ ko mën nañ ko wax parce que laaj nañ question boobu Cheikh Tidiane Cissé nee na mën nañ ko wax mën nañ ko aussi bañ a wax parce que amoon na fichier bu fi nekkoon mais aussi bu ñuy dem ci élection dafa am révision exceptionnelle boo xam ne moom mooy moom mooy am donc ci loolu ñu déglu ko mu ñëw si question bi nga xam moom nga posé kii nag waaw foofu foofu man il faut que ñu il faut qu'on soit un peu prudent. prudent mhm. parce que. Mhm. Mhm. manque de problème mise à jour boobu man na euh, xaw ma ban moment la inter la la intervenir. te xam nga acteur politique aussi. lu am ba des mooy ñoom mën nañoo utiliser le euh, euh, dernier fichier fichier électoral bu. législative 2022. parce que boobu au moins ñoom disposé nañ ko yor nañ ko. kon ñoom bi ñuy def seeni parrainage xëy na liggéey nañ ci fichier boobu. te diggante boobu ak tey euh, benn révision moo fi jàll exceptionnelle te boo xoolee révision exceptionnelle boobu ñi ci yokku euh, ça tourne autour de de de 300 000 moins de quatre cent 000 électeurs yu dugg donc foofu li euh, liñ ci mën a jàpp mooy mënuñu wax à cent pour cent que ni ñi nga xamante ne dañ leen rakale lëkkale ci ci ci ci ci parrainage bi mhm. fichier électoral bi moo tax wala mhm. taxul waaye li ñu mën a jàpp daal mooy mhm. fichier électoral bi moom am na si ñoo xamante ni lésé na leen parce que bu ñu demee ba ñu ne say parrainage ñi nga xamante ni ñoo la pare ne am na si ñoo xamante newuñu ci fichier électoral bi loolu day indi problème te loolu nekk na loo xamante ni lu lu luy garantir euh, transparence processus électoral bi luy garantir aussi inclusion Aïcha ci question bi nga xam ne moom nga posé donc nee mën nañ ko wax mën nañ ko mën nañ ko bañ wax parce que am na révision exceptionnelle boo xam ne <laughs> non ça dépend parce que après bu ñu expliquer rek dina cest à am na révision exceptionnelle boo xam ne def nañ ko donc inclure quelques donc nouveaux électeurs yoo xam ne vraiment bëgg nañu voté li nga xam ne mooy 2024 mais aussi de l'autre côté aussi daf leen di mën a dal parce que bu ñu jëlee benn fichier électoral boo xam ne c'est obsolète donc mën nga andi ay parrain ñoo la parrain yi nekkatul ci li nga xam ne mooy fichier électoral bi donc loolu noonu aussi mën boo xoolee ne moom am li nga xam ne mooy mooy mooy issue bu bu parce que mën nañu sukkandiku ci li nga xam ne mooy fichier électoral bu 2022 révision exceptionnelle aussi aussi am na te aussi actuellement on n'a pas assez de temps pour vraiment di xoolaat sur le fond ay candidature yoo xam ne vraiment dañ leen a ci li xam ne mooy parrainage. très bien Kajo. Euh, day relancer waat rek li nga xam ne chaque fois si plateau bi loolu laay wax c'est-à-dire quand il faut se battre pour des questions essentielles l'opposition dafay nekk ci ay questions de troisième mandat des questions de tout yoo xam ne ça ne ça ne concerne qu'une part une personne un seul parti est-ce que voilà lii du du du justifier rek naïveté boobu noonu quant à se battre pour des questions d'ordre général. mën na ko mën na ko nekkee parce que moom mais mais du du tout simplement li nga xam ne mooy mooy l'opposition parce que di nga ko waxee vraiment. opposition la classe politique de manière générale mm-hmm. mën nañu ko wax vraiment mais aussi l'administration parce que vraiment parce que bu ñu nee révision donc des listes électorales vraiment. Euh, Euh, les les les opposants mën nañ ko wax c'est-à-dire ñi nga xam ne ñu ngi ci kujje politique bi mën nañ ko mais aussi liggéeyu li nga xam ne mooy l'administration la parce que bu ñu amee lu mel ni DG lu mel ni DAF lu mel ni Sénat nga xam ne ay organes yoo xam dañ leen fi teg pour ñu def liggéey boobu noonu loi bi jox leen ko ñu war ko mën a liggéey bu ñu ko deful ñoom tamit ils sont ils sont fautifs vraiment loolu ñoom war nañ ko mën a def sans pour autant wax di am donc comme ni waxee donc opposition bi vraiment nekk na benn kujje boo xam ne vraiment li ñu war a wax duñ ko war a wax parce que ñi ngi ci ay oui nii oui nii mandat libéré Ousmane Sonko alors que y a yoo xam ne vraiment am na solo bu baax a baax waxuñu ne li ñuy ko wax vraiment c'est pas légitime mais y a yoo xam ne c'est beaucoup plus important mais aussi l'administration aussi war na mën a def liggéeyam parce que lii loi bee ko jox ñu war ko mën a def. <laughs> <laughs> ne en majorité ñi ciy liggéey ñi ñiy def lu baax di ci liggéey di respecté ñoo ëpp ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo si kii quoi. ñoo si ñoo def loo xam yoon. bon une bon peut être benn je sais pas ma xam question la wala lan laa ko mën tuddee est ce wax nañ si euh, wax nañ si euh, le fait que euh, fichier bi sénégalais yi day parce que ñu bëri homme politique yu bëri dañ doon lañ ko wax ne fokk ñu def jox ko à la disposition des gens que ñu yor ko te man pour man loolu am na am na benn risque est moom lan la ci xalaat et puis bon yow la moo ci sa position. moo ci son bañ ko ko bañ ko ko laajee que nee nañu loolu ñu ngi koy ñu ngi koy wax mais nee na loolu pour candidat yi nga xam ne vraiment dem nañu. ca ku ci ci ci jongante bi ñooñu lañ ko war a jox c'est-à-dire donc liste définitive donc ñooñu lañ ko war cest à ñu ngi ko doon wax candidat yi nga xam ne ñu ngi dem ci parrain ñu ngi ko doon laaj mais du ñoom lañ ko war a jox ñi ñu ko war a jox mooy ñi nga xam ne déclaré na leen vraiment définitive dañuy dem ci li nga xam ne mooy élection présidentielle en 2024 merci Amadou jaajëfal nañ la bu baax a baax on termine rapidement ak Keïna ah, ci li nga xamante ni moom la ñu léegi-léegi bu baax bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi